Gueye numéro 2 ku ne gis nga war nañ leen départ yeeg lépp loo xamante ne am na fi public yi fa nekkoon tey war nañ leen lépp ci wàllu départ Gamou Gueye numéro 2 ah wara a ki nga xamante mooy Tapha Mbeur loolu ci kanam lay xewee bañ fa jógee dañ dem ki nga xamante ne tey euh, mooy Papa Yade numéro 2 moom it mu baax mi nga xam ne dañ ko duppee drapeau yaaram production moo tuddee Papa Yade numéro 2 drapeau ci diggante ki nga xamante ne mooy Osot ak caatu fora ñoo war a bëree drapeau Papa Yade fële ci arène nationale lay xewee mbokk yi ñu ngi fi ci buntu kër Papa Yade Papa Yade doonoon champion doonoon daanaan doonoon xale boo xam ne kenn dootu ko fàtte ci wàllu làmb rawatina waa gis ngeen dañuy dugg ci biir laaj ñi nga xamante ne ñooy yaayam ñooy magam ñooy am di ñu wax ñu dëgg-dëgg kan mooy Papa Yade numéro 2 ak yaaram yi nga xam ne moom moo ko duppee drapeau bi ñu wax si ñoom jaa ngeen jëf ngeen jëf yi internet yi ñu ngi leen di nuyu waaye di ko ñaanal ñëpp di ko ñaanal mondu làmb waaye àdduna bi yëpp mu ngi leen di ñaanal jàmm mbokk yi tey ñu ngi fii ci Jokkul ci kër Papa Yade numéro 2 mu baax mi Papa Yade mi nga xamante ne ndaanaan la woon champion la woon ci làmb rawatina ci tëngéej daan ci def loo xamante ne nii nee bi mu génnee àdduna sax lañ dëgg-dëgg lañu ñu xam kuy Papa Yade numéro 2 parce que jàmbaar la woon fii daan yar gone yi kon manqué nañ ko ñu koy ñaanal fi nga xamante ne foofu la dem ñu ngi koy ñaanal mu gënal ko fi mu jógee mm. yàlla xaare ko àjjana mu xippee àjjana àjjana doon këram waaye dañu toog ak magam toog ak koo xamante ne ku sës la moom ci moom ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen di fay. mbaa yaa ngi Yaram Production duppee drapeau Papa Yade numéro 2 mu mel ni tey loolu bu ko defee tëngeej la ko defal rawatina waa kër Papa Yade tey ngay mag ci moom ana tey nan nga jàngate bi bés. waa xanaa di sant yàlla rek sant sama ñaari waajur di sant yaayu Papa Yade Papa Yade xale la boo xamante ni nii nii rek daal la mënoon a demee ndax yaayam ji ka sukk jur bu ko neexoon mu ne si aadama ah, ah awa lañ gën a bokkee ne yaayam di mag mu baax di mag mu am diine mu ñeme dëgg lu ko waay di waxal ku ñeme dëgg ku bëggul kenn échec bëggul daray nit yàqu benn yoon ami seen ndoy nii Papa Yade nag ñàkk nañ koo xamante ne ba àdduna yu tukki dootuñ ko amati si àdduna muy xale bu baax hmm. xale bu am respect si nit ku am yëg-yëg si nit hmm. yaaye mën naa ne mooma mag ma xamoon ko mu ma doon jaay yàgg na ba nekk jokkuwaag ma fekk kër Ilimaan Njaay lu yàgg mu ñëw jokkul yàlla def mu ñëw fi mu yaayoo ma ak sama xarit bu ñuy wax yaa ma ren jéey chaque jour ñu ngi këram gii muy togg di ñu jox muy lekk mu nuy yedd di ñu dugal lu baax hmm. papa yàdd nag dañuy jooy si loo xamante ne nii dañ koy jooy loo xam ne mën naa ne sax kër gu nekk la ko borom di wàcc te ku mu dal mu métti waaye bésum dafa métti lool mu hmm. ne la ndul fàtte hmm. muy xale bu baax ku bëgg ñëpp lu mu dégg si lu bon nit moo tax mu dégg hmm. damay toog seen kër gii di histoire yaayam ba géej lépp yaayam war ko jox jotee moom day jóge kër yaayam fekk ma ba sama kër jëliwaat ma ne ma lu neex defal si kër gi muy xale bu baax ñu ànd si politique bu nu demee di xeex ñëppay daw mais bu nu reculer wala nu gëstuñu ginnaaw moom rek la ñuy gis fu taxaw gis ka nu yàlla mi nga xamante ne mooy tey mooy ëllëg yal na ko yàlla def ci jàmm foo mu tëdd yal na fa xippee àjjana si barke xam ne yal na yàlla yokka dara jaam si biir suuf barke bi mu fi des si ndeyam yal na des yal nañ dundaa dundaa dundaa dundaa dunda ba wërsëgam wi si àdduna ndeyam ji toog di ami seen doy pasement kam jege fi dee na am ñaari at si suuf mhm. limu am am na ay kilifa sax yu ko mhm. man de wax yàlla xaw ma yàlla moo xam mais man ñee naa ko na lool nag dafa hmm. deewe ndaw métti na lool hmm. xale bu tuuti toll sa biir àdduna hmm. nga dee xale ndaw métti na. loolu la ñuy wax Yaram production. waaye Yaram di production ñu ngi leen wax ne seen ak bi ngeen def rafet na ndax lii coomo mënu ko yor sa rajo yor seen ay caméra di dugg si nit ñi xool nit ñu baax ñi defante nit lu baax ngeen dugg fi yàlla na yàlla fay leen yàlla yokk leen ngeen am ay télé télé si barke Seydina Mohamed Papa Yade. fa teg tekk tey jii yàlla na ko fay yiwu fekk si daraja Seydina Muhammad mm. yàlla na yaayam dese barke bi lii rek laa am si lu may wax. tax Gamou Gueye war a bëreeg Tapha Mbeur muy doomu jokkul ba léegi. waaw Gamou Gueye moom it xale bu baax xale bu yaru ñoom ñun ñëpp suñuy rakk lañ mm. ñoom ñëpp suñuy rakk lañ xale bu yaru am yar yàlla na yàlla defal ko jàmm mm. yàlla may kandam ndam li mm. ba drapeau bi Papa Yade mi ngi ko tudde drapeau bi tey joge Dakar ñëw Tëngéej mm. sa daraje Seydina Mohamed yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def si barke yonent bi ñu ngi koy jaajëfal mbokk yi gis ngeen mag ji mu wax am na solo dañuy daal di jël keneen ci ñoom waxtaan ak moom ba tey rek ci Papa Yade waaye ca keneen ki jël moom it mag la ci Papa Yade numéro 2 mu baax nga xam ne kenn dootu ko fàtte ci tëngeej rawatina mondu làmb ah, yaa booy ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. mbaa yaa ngi am jàmm. bu mhm. Yaram Production. duppee drapeau bu mag bi duppee ko Papa Yade numéro 2 mu mel ni ñu ngi koy fàttaliku mu doon koo xam ne kenn dootu ko fàtte ci wàllu làmb. dëgg la maa ngi nuyu hmm. nga Papa Yade. yaayam day sama nit. Hmm. di sama yaay. yaayam daf maa bëgg yaayam lu moo nekk suuba ngoon jot mu ngi si def loo may nuyu nag sama yaay na damaa bëgg sama yaay te moom yaayam ji dafa bëggoon yaayam ma gisee ku bëgg yaayam nag may neex gis nga papa Yada neew fi de waaye ma ne na mu ngi fi baax am yar bëggoon yaayam ndax man kër gi du ma fi jóg lu mu am ñëw na ko jox yaayam gi parce que Seydina Muhammad ma waxal kenn loo xamante ne nekkul yaayam doon ku baax am diine am ngor am lislaam yaayam bi ngay gis ni hmm. doon taaliba seex piir soxlaawul daray góor xëy yenu pañeem jaay ji jig bu ndaw bu si amuloo sol mu oola daggal nga sol heure boo amee fay hmm. yaayam ji muy ku baax di ñaanal nag aji dem ji fa mu nekk yàlla na ko gën parce que fii ñun ñëppay dem hmm. na rafet bu muy dem deful benn defoo waxul ben défaut génn na fii tàggu yaayam sañ sa ba jekk yaayam ñaanal ka mu dem la yaayam mujjee gis fii dara ump ma fi hmm. barke Seydina Muhammad hmm. muy xale bu baax bu naroon ne siggil tëngéej hmm. tëngéej ñu dégg leen fépp ndax papa yadda man damay toog sax mën naa tëngéej est-ce que mbër nii bu mel ne papa yadda dina fi amati baax na am na cër buy bëri gu nay ndaw boo xëyee fii doo am foo jaar taalibe yi dañuy toog a toog di ko xaar mu yeew pour mu jox leen barki Seydina Muhammad man tey fii fajar dama julli rek jubase fii fii laa fekk taalibe toog ñuy xaar papaam pour mu sarax leen hmm. papa Yade di nit ku baax yaayam di nit ku baax ku gore ku gëm yàlla ndax fi doomam dee dafa metti champion nekk si diggi nënd war a teral sa yaay sa yaay yaakaar si yow nga wër ka yëkki yóbbu ka màkka hmm. nga ne def ay dem yàlla mooy def hmm. yàlla moo man yàlla mooy reye mais yàlla nañu yàlla doolu sutura te gën a bës suñu xol yi ñu yéenante jàmm di waxante jàmm suñu biir tey jàppalante jokkul bonuñu jigéen góor ñëppay liggéey mais nañ yéeneente jàmm su ñu yéeneentee jàmm fii ñu ñëppay am hmm. di ñaanal na Gamou Gueye yàlla na ko yàlla may ndam xale bu baax moom tam xale bu ñàkk ki ñaan ku mu romba si tali bi taxaw nuyu la mag ndaw xale ku mu romba taxaw nuyu la xale bu baax laa ne la man ku ñàkk ki ñaan njoogu ku baax ku ñàkk ki ñaan ku gëm boppam parce que Serigne Touba tey mu war a bëree grand combat ci diggante moo Tapha Mbeur tey lan wax ci xanaa feete suñu victoire. dafa am bëri xale bu bari coow la ci làmb. waay njugu xale bu am coow bu am gabari bu mën a bëre bu pare. barki Sëriñ Tuubaa dafa am dafa am bër Liss Ndiago la mujjee daan te Gamou Gueye numéro 2 mu ngi jóge ci defe ci diggante mook soxu bu yàggul dara. foofu ci arène nationale Pikine fa lañ ko bëree woon tey mu ngi war a bëreeg Tapha Mbeur muy xale bu bari cow ci làmb nee na amul lu muy waxa ak adversaire am lan ngeen jàngatee boobu ko ba tey léegi gis nga àddina boo fi il faut nga ñam defet hmm. parfois nga dem ba marché di ndugg chaque jour ndugg mu rafet di ndugg di ñëw di togg benn jour nga ñëw ndugg togg loo xam la bu subaa kala jaayandoo fa jaar il faut nga am defet defaruwaat hmm. nga am champion la loolu lañ koy digal xanaa di dem daal bañ a xiif bañ a ëppal rek la ko dóor ko daan ko njibbi si ñoo toog nu feete ka hmm. lii laa wax ndeysaan yéen a ngi dé <laughs> yéen a ngi dégg loolu ah macha allah ba tey làmb la euh, ba tey ñu ngi fii ci kër euh, Papa Yade ah numéro moom tamit champion lan euh, dama doon wax naan bu roi des arènes daan bu bu duggee fii Tëngéej Papa Yade moo ko fi indi far yàlla def li muy def moom maag moom benn yoon lañ def interview fële maa ngi def euh, boobu en direct ci làmb Zar République boobu bés du ma ko fàtte maag moom ñu toog waxtaan ci lu bari ba ñu diggoon benn émission bu ñu waroon def mais à mu jugoo ñu ko def yàlla ñëw dogalam kon ñu ngi ñaanal Papa Yade fee mu nekk gënal ko fi mu jógee suuf a a ñu daal di aja yaa booy ñu ngi lay nuyu. maa ngi rek. ñu ngi lay nuyu dañ ma oo sax maa ngi leen di fay. maa ngi leen di sant di leen gërëm. da mm-hmm. ngeen def ni cuuna manu ko. Mm-hmm. papa yaa demee ndëkk yaayam ñu àndoon ba ñu tuur te changé wu ma su ma changé woon ma changé ka mm-hmm. yaayam lu mu xam man mi la dama koy wax. nëbbu ma daraam yaayam day def dara sama naka ami seen bul defee ne noonu defel nii mu ne ma li nga wax laay def yàlla na yàlla yokk jàmm di joom metti na wante yàlla ku mu solo rek lay jël manqué nañu nag yàlla mi am jàmm te may jàmm bu mu tëdd yàlla na oyof si kawam. mu am lu mu représenté fii si Jokkul waxu waxuma la ak nag Tëngéej. représenté lépp nag gis nga buy bëree. tey jii sama xol dafa sori. nii lañ daan def fii kenn du fi xaj comme ni ko Maguette Ndiour waxee rek ñi wax nañ lépp sax taalibe yi ñëppay toog bëgg yaayam nag bëgg yaayam yërëm yaayam lu ko yaayam naka bàyyil mu bàyyi ko yaayam naka jàpp jàpp yàlla nag moo def li mu am day metti na de wante am dëjëm bii masuma ko gis ci Sénégal masuma ko gis te yàlla rek tax yàlla na ko malaaka mi yërmande teeru lépp nag lu muy mëbatoon yaayam yàlla na ko yàlla xëpp si yaayam ji mu dem ba mu am si biir de dafa sedd guy yàlla na ko malaaka mi yërmande teeru yaayam bi du ko baax kenn jayu ko rek li mu fa wax rek la fi waxal bu ñu waxoon leneen tamit duñu toog fi di témoignage mais li mu def rek lañ ko wax yàlla na defal jàmm drapeau bi nag ki ko def cuune mënu ko yaaram lan ngeen yaaram la kontaan si moom rek hmm. ndax li mu def ni mënoon a fàtte papa Yade wante ku def lu baax lamb du fàtte papa Yade ku def lu baax am lu baax hmm. te papa Yade sax ku ko fàtte fàtte nga mbër de ndax champion la de yàlla na sa yàlla def jàmm jaajëf ñu koy jaajëfal bu baax témoignage yu am solo yaay booy aja mbokk yi ba tey ñu ngi fii ci buntu kër papa da ngeen sànq li ñu waxtaan ak yaayam yi magam yi témoignage yu am solo lañ def ci mbër mi mbër mi doonoon champion xamante ne xajoon na fi fii ci Tëngéej ndax dayo bi mu yoroon champion yamul woon ci bëre rek waaye ci yar gone yi papa yaada amul xaar ma yàlla kenn ñu ngi koy ñaanal fi mu ne gënal ko fi mu jógee yàlla xaari ko àjjana Modou Faye foo mësaan seen Papa Yada da nga fay seen Modou Faye ñoom ñaar amuñu nëbboo Modou Faye ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum ñu ngi lay siyaar bu baax. bàyyi nga am jàmm. sant bu baax di nuyu tëngay yëpp waaw di sant tëngay yëpp saa su nekk waaw ndax kooku dundu la nit ñi loo xamante ne da leen fay ji di leen jëndi kooku daa dundax nit ñi loo xamante ne tey jii day aay rek ñëw barki Sëriñ Bamba déggoo ma de kooku xolo daa tax laa lay wax xol ñu defaru ba pare xolo mu dem bàyyi ñu si lu gàtta daa am loo xamante ne dañ ko waroon dund ak moom déggoo li ma kooku du làmb ay affaire kër gu rafet moo ko si dugal ñaata mbër nga fiy teg micro ñuy jooy naan ay kër gu rafet lay wër ñaata mbër mos ngaa tegal Papa Yade micro mu jooy la avant moo judd tabaxal nañ ko kër gu yaaj mu ngi nii moo tax moom après dafa doon ñaan yàlla fay meeram laa la wax waxuma la ay ay R plus trois rek lay wax boo xamante ne maire bi essentiel moo koy yéegal fu ko neex waxuma la ay immeuble booy jaar ci chaque jour laa lay wax essentiel fu ko si neex suuf kaw looy wax yaaram production mi tëgg bés bi tuddee Papa numéro 2 drapeau bu mag bi nga xam ne tey ñu ngi ko war a bëree arène nationale ci diggante caatu Fora ak Osot. waaw xam nga rek kooku noonu man xam nga lan laa koy njëkk a njëkk a njëkk a waxal ne mooy gisaguma ko mais bëgg naa ko moom tey bés la tey nii sax ndax tey daa yéex. mais jour bi ma déggee ne Assane Diop daa am ku ko tuddee drapeau laa lay wax de jour boobu ne man su ma la waxee dëgg rek guddi googu noonu noonu laa guddee tëdd dama toog sama néeg nii xoola di waxtaan loolu noonu xoola jëmm ji toog sa wet nii indi drapeau jëli drapeau bi indi ko yàgga mi sunu grand la koo xaa boo xamante ne amul dara lu dul ñun te ñun ñooy rakam yoo xamante ne dañu dëng torop torop torop te nekkuñu si dara lu nga xamante ne nii xool wax mu ngi ñuy seetaan gan gi ñu toog sa wet nii ko dénk sunu bopp nag ñun ñi nga xamante ne xam ñu ñu ñu nga xam daal nangu jox nañ ko daal sunu bopp daal xam depuis boobu ba léegi bi bëri bi génne àdduna gis mu taxawoo gars yi taxaw bu nice ba léegi nii moom ni mu chaque jour collectif bi hmm. xoolal fa la taxawee te Assane Diop da ko see jiitaloon saa bu yeewoo nii xool mu ngi wax booy bi del def nii del def mel ni bokk nga ci ñu war a yóbbu drapeau bi tey. waaw noonu la ko yàlla dogalee noonu la ko yàlla dogalee ndax xam nga xam nga gi nga loo xamante ne nii xam nga da nga see bokk xam moom. Hmm. bokkul ak loo xamante ne dañ la ciy jéem boole wala ñu la ciy woo kooku daa am yem mais ñun tey dañ fee toogal Assane Diop kenn toogalu fi jëmmam man toogalu ma som boobu keneen noonu ñun ñi ñëpp jëmm Bordeaux lañ toogee fii ni ma toogee nii fii nii noonu la doon toogee ma wéeru nii mu wéeru comme ni nga wéeroo barki Serigne Touba Mbacke ñu takka fii ñetti nag maak moom dem géej sangi leen ñëw toog fii li ma lay wax nii barki Seydina Mohamed dañ ko dund ay ati ati at kooku dañ doon dem mu mbappati si àll bi xoola gisul kenn doon jàmbaar kooku bëri nañ mu mu tournoi ay tournoi ba zone yëpp xoos zone yëpp mu des ay demi-finale waaye Papa Yade zone yëpp xoosu baay xoolal mu ñëw assuré làmb ji gaayen fay liir assuré que dë dëkk bu xorom boo xamante ne fi la fàqatee sa yi bu dree ko waate benn affaire la bërëb bi jaayante bu jël féliir foofu noonu benn nag buñ tuddee féliir village boobu la ko jëlee woon ma ne ko mu bëri mu ne naa ma ne ko kenn du ànd ak borom jom di ragal ma ne ko mbër mu ne naa ma ne ko mën xola ragalu ma ànd ak yow ndax xam naa damay jekk saa rek gesu rek suur mande ndox barke alxuraanul karim ñu koy waxtaan maak moom ni di lekkandoo di naanandoo di yeewandoo di defandoo lépp ba borom bi xëy xëy rek jël ko ni ah. guddi googu noonu ba may gontu ñoo tàggoo ko niñ daan tàggoo man demoon naa ba xama rek ak yoonoon ndaw xama rek ak ah, xama ay dox mooy loolu am na benn instant déggatuma dara man taxaw naa si instant yoo xamante dara Assane Diop moo wax ma dégg ni mu ñaan may ko mu génne ma si yu bëri ba pare dem bàyyi ma te pour man li may génne noonu yëpp ah non dama koy bàyyi rek xoola après nice mais ndekete loolu dama koy bàyyi tuuti rek bëri bi nax ma dem histoire bu métti lay raconté ah. mais sant yàlla rek ndax ñun ñëpp ay xale lañ te kenn gënu ko si woon nekk si yoon mais dañuy ñaan yàlla ñun ñëpp saa su nekk comme ni ñu fi borom bi bàyyee ñu ay nitam di ko fi gën a waaw teewal di ko luñ koy defal lu nekk xam nga taxawul ndax borom bu baax la woon ñun amul kenn ku ko loo xamante ne defal la ko góor yàlla te loolu moo am solo nit du alal affaire bi yëg-yëg dañoo yëgante woon nag ba léegi nii loolu du dañ suñu jaajëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax ah ku ne dégg yi mu wax ci mbokkam ci xaritam ci magam ci lépp ci koo xamante ne moom la daan àndal ku dégg bëccëg mu doon tiis bu méttee méttee méttee tey ñu dubbee ko drapeau mu mel ni fàttaliku papa Yada la waaye papa Yada kenn doon ko fàtte ci àdduna jàmbaar ñu ngi lay siyaare waaw ñu ngi lay màggal bu baax. mbaa yaa ngi ñu ngi sant bu baax a ni mel ni mënuñoo wax fii tey ci mbooloo mi te duñ la jox euh, li nga xamante mooy numéro. noonu la demee. tey sa diggante ak Papa yaada boo ñu si doon wax tey lan nga ñu ciy wax lu ndaw rek. waaw ànd bu rafet rek bu dëggu rek bu sincère quoi waaw te lépp Baye Fall lal ko waaw ci Baye Fall la ñu àndee woon waaw. mu doonoon Baye Fall doonoon champion fii ci Tëngéej mu tax na làmb dootu ko fàtte ba tax tey ñu tubbee ko drapeau bu mag bi Yaram Production ànd ceeg groupe beeg ñëpp tuddee Papa Yade numéro 2 drapeau tey ban yëg-yëg ngeen am. waaw kontaan ci rek a ci mbégte bu baax a baax comme ni ko Modou Faye waxee sànq rek mu doon lu kawe suñu lu rëy suñu parce que Assane moom xamu ñun saa dañ koy dundal ñun xaaruñu bés waaw ñun chaque jour Assane dañ koy dundal chaque jour xaaruñu drapeau xaaruñu bés xaaruñu dara mais bu ñu gisee ku ñuy jàppale si loolu nag. moo ñu loolu di ko sant di ko gërëm moom mooy promoteur bi nga njëkk a def te booy xool day soog a door sax moom am na promoteur yi fi nekkoon yàgg fi xam a Assane bëral leen ay combat mais amuñu sax xalaat boobu comme moom moo am xalaat boobu nag moo ñu loolu di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal waaw defoo ko rek toog di ñu seetaan tamit mu ngi ñuy nemmeeku xam nga di ñu woo di xam nga di waxtaan ak ñun saa su ne ndaw la yàlla nga sunu borom jàppale taxaw ko ak ñi mu àndal ñëpp waaw loolu lañ koy ñaanal daal. yaaram yàlla na suñu borom jàppale ko ci bés bi mu am ci réussite totale parce que loolu rek lañ koy ñaanal te da koy am sax ndax ki mu ko tuddee moo doy noonu ci làmb monument la ci Tëngéej monument la ci làmb tamit aussi Papa Yada kenn dootu ko fàtte ci àdduna ak ñu mu defal man mii rek am na ay réaction relation yoo xam ne séqoon naa ak moom te yàlla benn interview rek la ma mayoon ci moom ba ñu ba émission programme ko woon far yàlla jël ko kon ñu koy ñaanal bu baax a baax moom suuf ay su kaam mu xippee àjjana tey Gamou Gueye numéro 2 ak Tapha Mbeur ñoom it waaw làmb jooju tamit làmb waa Tëngéej la sa Gamou Gueye ñoo dëkk doomu Tëngéej la ku baax la moom it waaw di ko ñaanal yàlla may ko ndam rek waaw muy bëri xale bu am coow ci làmb Tapha Mbeur non Tapha Mbeur amul sens ci làmb ji man dama koy wax ni làmb ji mu jël ni amul a sens ci bëre wala ci dóor moom lu mu indi rek day metti si moom mu taxaw xaar sa waay jël daan a seet. parce que nee na ku ku ëpp entraînement ku dàq bëre ku ñeme coono yàlla na la yàlla may. kon amul sens sa gàmmu gay mi wax ñoo bokk saal bi ñuy entraîné saa wu si jugee tamit mu ngi nekkaat ci boppam di entraîné mayul boppam jàmm daal man gis naa muy liggéey lu metti kon bu waxee loolu moom amul sens si làmb ji. muy mel ni combat boo xam dafa metti si ñaari mbër dama leen yërëm sax boo xoolee ci gàmmu a yërëm parce que dafa jógee ci Tapha Mbeur ku ne xam ne caatu euh, mu tudd mbaru jàmm gën bi la mujjee bëreel. waaw mooy Liss Ndiago waaw Liss la mujjee daan bu yàggul dara kon defe naa ne kon ci gàmmu gay lay mën a lay gën a méttee moom mi jox ne ci defet la jóge moom loolu sax moo tax dugg ci gàmmu gay mais foofu du baax de moo na xool feneen gay su mu dal nii baaxul gàmmu yàlla na ko yàlla may ndam rek ñun ñëw waa Tëngéej la ñoo dëkk magu papa ya la yàlla na ko sunu borom may ndam ci combat boobu ñu ngi koy jaajëfal bu baax gën ah gis ngeen réaction yi ñu fiy jëlee fii ci kër Papa Yade ci buntu kër gi rek lañ toogee actuellement Badou Mbaye maa ngi koy jaare waat bu baax Baye Fall bi ah maa koy bëggee suma xarit la moom it wax dëgg yàlla doon rapporteur moom it euh, bu mën li def aussi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax mbokk yi lii lañ lii lañ leen doon jëlal fii ci jokkul gannaaw bi jógee kër Gamou Gueye numéro de ñëw kër Papa Yade ñu ngi leen di jaajëfal di nuyu monde lamb yëpp di jëfal waa Tëngéej ah di nuyu euh, Nabou gay maa ngi koy siyaare bu baax taalibi Serigne Sali boobu borom jàppalal xaban borom moom xëy nga borom daare njurul ah waaye di bëggee képp koo xamante ne rek yaa ngi bëggee Kër Ndaanaan TV ah nekk fii ci Tëngéej ñu ngi leen di siyaare bu baax équipe bi yëpp ñu ngi leen di siyaare équipe bu Kër Ndaanaan TV yëpp nee naa wax rek lañ ci am waaye lépp loo xam ne ga mu moom ngeen di seetaan ci image yi muy rafet ñi nga xamante ne ñu ngi ci ginnaaw la ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ah jaa ngeen jëf